Okay. mi sëriñ Omar Diop doon wax léegi ci moom li mu def ci Gopal. Segurança Municipal. nekkutoon ci yàlla. xam naa bu nekkutoon ci yàlla. koo boobaa day kersa ndax kersa wante mu ngi dem lool mu ngi dem lool mu ngi dem lool lépp moom moo kaw koo xëyoo moo kaw mu xëyoo ko loolu mu ngi koy jéem bu baax mu ngi koy jéem bu baax ci biir du ko bind. da nga xam ne yàlla buur bu tedd la buur bu tedd la buur bu tedd la buur bu baax la buur bu yéeme la buur bu mën a maya buur bu mën a denc la moom ñëwut wax li ko yàlla may ndax xam ji mu xam ne loolu xam na ko bu rafet. doomu aadama ku ko ñu ne daal. soo ko ñemee dof nga. da moom. la ngay fanaanoo xamoo ko. xamoo ko. te yàlla boromu jagle la. yàlla mun naa xëcc nit. ci guddi gi. nga xam ne kii. boo xam ne. dafa naan sàngara. يلا la yàlla mayee wala yow Muhammad li la yàlla may wax ko jaami yàlla yi te yonent yàlla Muhammad li ko yàlla may bal bonde su dalee ci kaw yonent yàlla Muhammad day tasaaroo ca xeetu Muhammad yow ci lay tasaaroo ku ne jël ca mayam ku ne jël ca wàll nag ci boppam ñu ngi sant boppam mu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi sant yàlla bu baax su ko neexoon. mànga kenn du la bañ gerte yaa ngi doon bëgg a woo bay baabu ndaw jërëjëf. jërëjëf. Serigne bi dafa wax nit ne ko. dañ laa boole nga bokk ci deretu si El Hadj Babou Ndaw. loolu tekki wut ko sax. waaye sant na yàlla alhamdulilahi rabbil alamin bu ki juddee nga sa doom Babacar sa sooraat na ko jox na la ko. waaye Fadef na Why waaye xaalis this?

mool faale pextewu leen de dogo na ko ci barket yonent yàlla Muhammad pextewu leen boobaay léegi man na fukki at wala bu fukki at benn bayfaal moo tax wallaahi donc atam gerte yi yàgg nañ ci suuf si trop. atam gerte yi yàgg nañ lool ci suuf si. ndax dafa taw bu la neexee nga nekk Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima Fall jàmm. doomu aadama bu ko yàlla mayee jàmm. yéene ko ko yéene ko jàmm. daf koy mu nangu. daf koy def mu oyof. mu gaaw a gëm. daf koy def mu nangoo toppe. su ko defee sa biir nangoo toppe gëm nangoo topp. ci laay am loo xam ne. moom doo xam ndax lii naka laa ko amee. seen jëf yi ngeen jëf. lim leen may ci yàlla. lim leen may ci yàlla. te xaarul doomu doom yi ak jabar yi ak jëkkër yi da ngeen ko xam da ngeen ko xam da ngeen ko xam te dara nga yéen teel a Mouhamad saw la buñ ko ñëwee saw la bu ñu jaamal yàlla ñëwee su ngeen day kaamel day war naa nga ñëwee yàlla war na ko ci dara ko Baye Omar Ndaw xaalis la bëgg da ko am da ko am te dara nga yéen teel a Mouhamad yàlla. yéen ñëpp da Thank you.

yow bi nga toogee yekkal sa baay fekkul terewul sa baay toogoon na. boo fekk la mbir ma tëyee. sa baay daf lay dugal ci quota am nga dugal ko ci. yow sa baay daf lay dugal ci quota am jëriñ nga am quota dugal ko ci sa quota. loolu rek la. sa baay gerte. nga jox ko asaka. sa baay bay dugub. nga jox ko asaka. kon boo ne dugal naa sama baay ci sama loolu rek foofu la taggu kon ñooñu suñ mbokk yooyu ak góor gu baax gi fi nekkoon di seen ji di Alaaji Malick Gueye kenn ku ne gëmm nañu gis sa kota wante terewul ñu def leen ci seen ci kota ba bu njëlee yomal xiyam kenn ku ci nekk da nga gis ci sa biir boo xam ne da nga xam ne lii tëb ko taw a Babacar Ndaw la jógee loolu mu koy jaari ñi fi teew yëpp ngay dëkkandoor ak ñi fi jiitu ci suñ gannaaw yëpp ci gox ak xaritam Ablaye Ndaw moom it doomam dañ ko téléphoné ne jiitu na bu yàggul yal na yàlla yaram leen njaati ci baabu galle ñun doy nañ. xaalis dana yomb ba xam ne. wante lu xaalis yomb yomb. def ñuy ñaanal buñ saxee bay mi dëkk. dem na bay bëgg daanu. te xaalis dafa bëri woon. bañ sage seen bay. te xamuñ ne. adduna bi yëpp. lu ñuy lekk rek la ñuy dundee. xaalis kenn du ko def. yow li ngay bay moom ngay dundee. loolu duur boo fi gën naw. lu ñuy bay rek lay dundee kon lu xaalis yomb yomb buñ tàggatee mbay mi waaye doogu na ci barkeb soppeem ba yonent Yàlla Muhammad ñun ñu fi toog ñun ñu joxe ñu joxe wul sax i yéene ak bëgg a joxe danañ gis kéemtaan yoo ne. yi rasulillah te kattanal yàlla ku ci amul yow seetal sa bopp ku ci amul ci jëf nekk ci jafe-jafe ku ci am jafe-jafe te dajul yow boo tëddee waxtaan ak ah, war nga war ko wante ku ci warul ci sa moo xam kenn ak gan wala Dakar wala Joal wala Casamance wala Mbour wala Dakar wala Kaolack wala Thiès wala Touba wala Fatick wala Gox-Idulya wala Kàttan Borom wala Dines Ba ci la Ndiaye Mouhamad wala Birina Aji Babou Ndaw wala Birina Seydi Aji Babou Ndaw wala Tourmanda wala Sénégal sax wa ñuy wërsëg te Seydina Mikaayil tëj na buntu ba fu mu jaar dana sotteeku kenn mënu ko ci. élection yi ban ba tàkk na bu ko Macky Sall wóor su fekkee Macky Sall wóor mu ne bu ko Macky Sall woon ci bëgg-bëgg Sénégal mu ne Yon, yon. Mera yon. Mera yon. سلام ربنا ليكرم الخلاف وسل karena ini akan akan menjadi pelatih kami. Terima kasih عين سلامتنا تغمر رسول المولى يا باري بابنا عين سلامتنا تغمر رسول المولى يا باري بابنا عين سلامتنا تغمر أسرقت جاني أبي أولياء وبعي باب قادم روي الأسير رسول المولى baabu ndaw ay li salaami juna kilima asay kati jaani abi abay baabu xaadi mururi nasi fasukali mawla bay baabu ndaw ndaw ndaw ndaw salaami juna kilima asay kati jaani abi awliya baabu xaadi mururi